ci waxtaan a yéen ci bis bi nga xam ne moom lañuy jublu muy màggalu poroxaan di gennuk màggal gi nga xam ne moom la jigéen am fii ci Sénégal di màggal goo xam ne kenn ku ci nekk fi ñun war na ci jële jàngat ndaxte ki waral màggal gi daf fay jëf loo xam ne ba léegi moom la nit ñi di wax di ko kañ bàyyi fi aussi koo xam ne képp kuy yeewoo ci senegal te dib jullit bëggoon naa am doom ju mel ni moom muy Seexul Xadim kon nag ñu ngi ziar ñëpp ci màggalu Poroxaan gi di ziaret mbokki taalibe yi di leen ñaanal yàlla ñu dem màggali si jàmm ñibbisiwaat ci jàmm ndaxte kii tax ñuy dem di màggali jar na ko lim fi indi tamit jar na ko lim fi indi tamit te te aussi di loo xamante ne bii Euh, lu ama am solo la nit la koo xamante ne bii comme ni ma ko waxee léegi ku yeewoo ci Sénégal boo sañoon jur ku mel ni moom kon nag soxna jaara ci exemple exemplarité am ci jigéen joo xam ne euh, wane na tawféex wane na gëm-gëm wane na euh, pasteef wane na diine wane na xam-xam nangoo jàng nangoo liggéey nit ku mel noonu nag su fekkante ne bi da nga koo am ci sa réew euh, da ngay fier saa bu bisam ñëwee tamit képp kuy taalibe képp kuy jullit war nañoo wax ci moom wane ki mu doon wone la mu doon wane la mu jëf parce que li tax ñuy wax màggal waxuñu ko rek pour dem feetu mais dañ koo wax ngir ñu wax ki tax ñuy màggal lan la jëfoon lan la defoon lan la wane woon ba tax tey mu am màggal gi wala lan la wane woon ba tax tey mu nekk nit ku toll noonu kon nag ñu ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp màggalu jàmm di wax ne soxna jaara kenn du wax ci moom ba jeexal ci ndax royuwaay la royuwaay la ci topp ndigalu borom këram royuwaay la ci diine royuwaay la ci nangoo jàng royuwaay la ci am xam-xam royuwaay la ci lépp kon képp kuy jullit jàpp naa ne bisam boobu war nga cee wax war nga cee dox war nga cee jëf ndax liggéey bi mu liggéey ci 33 ans je pense que boo doon wër ci àddina bi ba mu daj doo gis doo gis ku mel ni moom boo dee wër ci àddina bi ba mu daj doo gis ku fi bàyyi lu mel ni lim fi bàyyi moo tax lu mat am solo la lu mat a kañ la lu mata naw la ndax fierté senegal la fierté Afrique la fierté communauté musulmane bi yépp la bu loolu weesoo nag ñu bëgg a ñëw ci deuxième point bi nga xam ne bëgg nañ ci wax mooy les force de sécurité et de défense ak population bi euh, forces de sécurité et de défense ak population sénégalaise dafa war a am lu ñuy wax une cohabitation ndax police ak gendarmerie ay corps d'armée lañ yoo xam ne liñ leen war a njëkk a jàngal bu fekkente ne bi jàngaluñu leen ko maa ngi ñaan seen formation yi ñu yokk ko ndax boo dee seet Sénégal police Sénégal ak gendarmerie Sénégal dóor ak padde ak football ak ak ak boddeeku rek lañ xam loolu nag jot na ñu indi ay programme yu bees yoo xam ne dañuy former les forces de sécurité et de défense bañ xam ne ñoom seen rôle mooy éduquer seen rôle mooy prévenir seen rôle du répression bañ nañ ko ba ci seen devise la répression si nécessaire lañ leen wax seen rôle c'est former c'est éduquer c'est prévenir et réprimer si nécessaire daa ñu jàng tubaab jàpp naa ne si nécessaire xam nañ lañ lay signifier kon ça veut dire que ni ñoom police ak gendarmerie waxuñu leen ñuy jàpp nit ñi di leen dóor di leen maltraité wala ku dawal oto ñu jàpp la nangu sa permis taxaw fële daan dañuy jéem a régler ay mille francs ki 2000 fële non non police ak gendarmerie lii seen liggéey mooy nit ku def infraction sax infraction ci boppam nit su ko defee nga jàng nit ki xool ko xam ne kii infraction bi mu def mi ngi koy door a def wala infraction la bu mu def moo xamante ne bi jar na nga yee ko te baal ko danga ko war a yee te baal ko fii nag ay police yu Sénégal ak gendarmerie Sénégal amul lu ñuy baale kenn soit da ngay négocier neexal leen wala nga dem fay loolu vraiment lu jara seet la parce que tamit ñoom ñoo fi nekk pour aar ñu yow mi fi nekk pour aar ma su ma defee njuumte waay waaye yaa ma war a jàngal yow policier bi dañ la forme dañu def ci yow pédagogie def ci yow yar jël tenue solal la jël ngànnaay jox la c'est extrêmement important dañ laa former jàngal la def ci yow xam-xam def ci yow pédagogie yow policier bi jël tenue jox la jël ngànnaay jox la waaye waaye yow loolu ñu la defal yow policier bi nga walbatiku di ko réprimer sa peuple loolu ñaaw na amul njariñ gis nga policier bi nga xam ne mooy policier bu exemplaire mooy policier bi nga xam ne dafay fekk nit def njuumte mu yar ko yedd ko jéggal ko romb nga nit mu def infraction nga xamal ko ne ko lii nga def infraction la nangam ak nangam nangam boo ko defatee nangam wante système bii ma gis police senegal Sénégal nekkee système bii ma gis gendarmerie Sénégal nekkee du loo xam ne moom mooy defar aw askan parce que lim ciy indi rek mooy nit ñi di leen jéppi nit ñi di leen mere chaque jour boo rombee policier bi ñu ne ah amul njariñ de jërul nekk foofu di wax de jëlal 1000 francs jox ko rek dema dema dem ba yàq kooru police bi valeur bi mu amoon ak kooru gendarmerie bi valeur bi mu amoon ñu yàq ko ci ay jox ko 1000 francs wala jox ko téeméer wala jox ko 200 vraiment maa ngi ñaan corps de police ak gendarmerie ak seeni autorité seen hiérarchie ñu defaraat bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo yor sunu sécurité su fekkee seeni salaire dañ ko war a yokk nañ ko yokk su fekkente ni bi dañu leen war a di yor teg ci ay conditions yu baax nañ leen teg ci conditions yu baax d'accord naa ci ngir ñu mën ñoo aar ndax problème bi nga xam ne moo am ci police yu Sénégal mooy da ngay gis policier Sénégal du fayeeku lu mët gradam ak seeni évolution amul yoon buñ bu mu jaare boole ci ñoom ci seen bopp condition yanuy nekk danga ci gis ab policier liggéey ba bàyyi du am sax kër danga nga gis policier liggéey ba retraité du am kër gu mu dëkk du am oto fan lay mujjewaat dem di bind fële ay plainte ñu koy fay mille francs taxaw ci buntu police yi toog di bind ay plainte ñu lay fay 1000 francs wala ngay régleel nit ñi ay affaire ñu lay neexal ay 1000 francs loolu amul benn njariñ man su ma sañoon kooru police ak gendarmerie ñu teg leen ci condition yu baax ba nga xam ne jikko yu sew jikko yu bon yi nga xam ne moo xew ci Sénégal fii ci tali bi ak ci mbedd mi te ñoom ñi di ko def jikko yooyu ñu mën koo bàyyi. parce que vraiment bu ñu bëggee tabax Sénégal mbir mi benn par benn la fu ci nekk day metti xam nañ ko mais am na ci barab yoo xam ne ñàkk jom wala sàcc wala wuruj wala nangam waru koo jiital. kon maa ngi ñaan hiérarchie bi xaw ma kan la ñuy fal ministre de l'intérieur. maa ngi koy ñaan nañu def ay réformes en profondeur ci police ak gendarmerie ak armée teg leen ci condition yoo xam ne jikko ju ñaaw ju bon jii nekk ci mbedd mi dina fi jeex ruslu na torop ruslu na torop torop torop torop man vraiment damay rus su may taxaw ci mbedd mi di gis raquette wala may gis yu ñàkk fayda yoo xam ne da ngay gis waa ji emprunté yi nga xam ne ñooy dawal njaga njaay yi sax respecté tuñu police yu Sénégal respecté tuñu leen parce que dañ naan sànni ko 200 rek sànni ko téeméer rek jël kooru police bi wàcce koo wàccee wàcce ba population bi wegatuñu leen emprunté yi rakkiyeetuñu leen transporteur yi respecté tuñu leen population bi respecté tul police bi alors que police bi dafa waroon a nekk corps boo xam ne dafay jaxasoo ak population bi parce que ils son chargés de la sécurité de personne et des biens ils sont pas chargés de réprimer loolu nit ñi dañ ko war di xam polisu Sénégal ak police bu mu mënti doon ci àddina bi teguñu la fi pour ngay dóor ay doomu aadama dañ la fee teg pour ngay orienter doomu aadama yi pour nga leen di éduquer pour ngay prévenir répression si nécessaire mooy boo jàkkaarloo koo xam ne il faut nga neutraliser ko obligatoire la te loolu ay exception la ndax fii ñi fi ñemee policier bariwut ñi fi ñeme yi bariwut fii ku fay gis tenue Sénégal di nga ko jox cër kon nag buñ abusé ñoom ci tenue yooyu ñu leen jox ak doole ji leen jox di racket wala ñuy dóor sénégalais yi wala ñuy toroxal sénégalais yi man daal message bi buggoon naa ko joxe parce que damay nekk ci tali bi damay dawal dañ may arrêté dañ may contrôler gis naa lii xew bërki dem boo njaay arrêté nañ ma man damaa dem ma fay 6000 francs damaa wax policier bi bindal ma mi ngi fële di taxaw di xaar jàpp na ma de policier bi ma wax leen jàpp na ma de ah? mi ngi fële di taxaw di xaar pour lu mu doon xaar pour ma dem si moom ne ko grand baal ma grand jégal ma grand xam nga ne naa daal di làmb 2000 francs wala 1000 francs joxoom demu ma grand li nga ma jàppale dëgg la Euh, sama oto bi de maa ngi koy door a jël bu subaa dinaa dem defari ko kon maa ngi jégalu loolu rek nga may mënal jégal ma wala nga bindal ma ma dem fay point final mais nekkuma fa man di raket ak a xaar parce que xaar boobu sax da ñàkk fayda parce que léeg-léeg policier da lay jàpp day day dem taxaw fee ngay ñëw mu ne la non taxawal foofu nga taxaw beneen oto ñëw mu nekk ca beneen oto mu nekk fa di la tardeel di la ñàkkal fayda ñàkk fayda yooyu man ci loolu laa nekkul moo tax waaj bi mu ma jàppee ma ne ko gannaaw danga may baal mu ne ma déedéet mënu laa baal ma ne ko loolu lii ma jàppee dëgg dinaa dem defari ko mais maa ngi jégalu mu ne ma da baalu ma la ma ne ko kon bindal ma mu ne ma ama ah, bindal ma ne ko waa bindal ma mu ne ma 3000 laa doon bindal waaye 6000 laa lay bindal ma ne ko bindal mu bindal ma 6000 ma dem fay ci keesu buur point final loolu nga xool ne su ma nekkoon fee ca wet ga woo ko jël 2000 wala 1000 francs jox ko dafa may joxaat samay pièces te duma defal dara loolu moo ñaaw loolu moo ñaaw te dañ ko war a bax te lu jara dénoncé la te man bokk naa ci ñi nga xam ne bëgguma loolu sama police réew di ko dox di ko doxe kon maa ngi ñaan teg leen policiers yi ci ay conditions yu baax jox leen leen salaire yu digne ubbil leen leen ay banques yoo xam ne danañ mën a leb oto leb kër ba nga xamante ne bii lii ñu nekk ci tali bi dana jeex man loolu vraiment je le demande solennellement à kii de droit à l'autorité telle que bu mu mënti doon ci Sénégal teg leen corps bu sécurité bi muy police muy gendarmerie muy armée teg leen leen ci condition yu baax ubbil leen leen banque yoo xam ne defal defal leen ni garantie policier bu ci nekk dana am kër dana am oto def jox leen salaire bu diiñ boo xamante ne bii lii ma gis ci mbedd mi dana wàññeeku bu baax a baax a baax a baax lii daal laa amoon man ci lu may wax ci wàllu force de sécurité et de défense yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk ci biir Sénégal mu bëgg a ñëw nag ci média fan yi coowu média bari trop ci Sénégal te ku ci nekk xam ne ne média moom mooy quatrième pouvoir c'est vrai ci àddina bi yëpp média mooy quatrième pouvoir ndax dañoo am force réew yi ñu déstabiliser yépp média moo ko déstabiliser bu ngeen xoolee Irak bu ngeen xoolee Syrie bu leen di bu leen di bu leen di euh, waaj a attaqué da ngay gis France 24 CNN BBC TV5 da ngay gis ay wax yu ñaaw la ñuy wax ci président booba di ko travailler pendant des mois ba dugal loolu ci bopp nit ñi. loolu moo waral ñu naan média mooy quatrième pouvoir l'Occident su bëggee attaqué tey benn réewu Afrique dañuy jaar di commencé jël BBC jël Financial Times jël Fox News jël jël France 24 jël TV5 yooyu ñooñu ñooy xëy naan président africain sangam day def ay atrocité day def corruption président bi nangam président bi nangam président bi nangam jàpp leen diaboliser leen durant trois mois après ñu attaqué leen dóor leen te loolu ci média lañ koy jaare média yooyu aussi dafa am ci Sénégal média yu dangereux ci Sénégal lii di Guété Sénégal mooy média yoo xam ne dafa am ay chef d'organe de presse waaye patron de presse yoo xam ne il faut clairement et carrément de la politique c'est-à-dire le service public bi nga xam ne mooy le service public le droit à l'information bi nga xam ne mi ngi ci constitution Sénégal dañ koo jël ñoom football ko ne politiciens yi léegi dañuy jënd ligne éditoriale ci presse bi Sénégal ñu waxal la li la neex su fekkee presse bi dafa ànd ak nguur gi saa xëyee ci lu bon ci opposition bi capitaine Dieye bett nañ ko nangam colonel Kébé gis ngeen ko def na nangam diw sangam def na nangam bu xëyee di la diaboliser ci seen journal yi journal boo ci mënti jël ka ca am journal ba ak télé ba day xëy boole journal ba ak télé ba jàpp opposant boobu di ko diaboliser di ko xas di ko diaboliser di ko bonal di ko bonal pour opinion Sénégal jàpp ne kooku nit ku bon la loolu presse bu dangereuse moo koy def presse boobu nga xam ne mooy presse écrite presse écrite boobu dafa am lu ñuy wax presse boo xamante ne bii mooy presse en ligne actuellement réseaux sociaux yi comme nii ma ciy waxee man di wax sama xalaat am na ci presse boo xam ne dañ leen di fay ñuy diaboliser nit di yàq nit di xas nit di toroxal nit loolu tamit lu jara def taxaw seetlu la am na aussi presse boo xam ne façon communication boo xam ne état moo koy def pour détourner opinion bu ngeen gisee telenovelas yi nga xam ne moo xew ci Sénégal fi mu toll nii telenovelas yu ci bari da ngay gis définir ay wor la ay ngorogu tas la ay jël jabari jaambur la ay tëddee jabari jaambur la ay ay góor gu am maîtresse la ay góor guy góor guy doxaani la ay nangam ay nangam ay nangam maanaam boo leen xoolee télévision Sénégal yi seen telenovelas yi wala film yi ñuy wone wala télévision yi ci ëpp lu nit ñi di seetaan jëf ju bon moom la ñuy promouvoir te loolu c'est extrêmement dangereux ci une société ñu nekk ci société Sénégal bëgg a defar société Sénégal saa boo xëyee novelas yi ngay gis à partir de vingt heures mooy waaju waaju waaju yu ngoro jigéen ñu am jëkkër am far ñaar góor a jigéen ñu ñu bett jabari moodu moodu ba nangam sàngam euh, góor gi am na maîtresse mais loolu technique yooyu nga xam ne moom la ñuy teg ci télénovelas yi di ko jàngal askanu Sénégal di gën a yàq askanu Sénégal man jàpp naa ne loolu moo gën a dangereux moo tax maxtar Gueye bu Jamra ñi ngi koy ñi ngi koy diaboliser diaboliser wuñ ko mër su Sénégal lay préserver da cee am ñoo xam ne seen yoon nekku ci bu ngeen demee bitim réew tey seen seen seen seen média bi am na ci histoire yoo xam ne ak problème yoo xam ne ak film yoo xam ne à partir de minuit lañ koy teg jëm kaw minuit jëm kaw pour mag ñi mën ko seetaan mais bu ngeen xoolee ñun Sénégal télénovelas yi ñi ngi koy teg à partir de vingt heures ba vingt trois heures diggante bi nga xam ne xale yi kenn nelawagul jeunesse bi yëpp ñu ngi seetaan bépp technique bu bon bépp technique bu mbon bépp technique gu trafic bépp technique gu sàcc bépp technique gu wor bépp technique bu bon boo xamante ne bi nit mën na ko def rek ngir wor nit wala lu yàq ay jikko moom la télévision Sénégal yi di teg jamono ji moo tax Makhtar Gueye loolu muy kaas man dama koy approuver dégg naa nag ay nit di wax naan lu lu am ci Sénégal la réalité la télévision bi di wane télévision bi am na yeneen réalité yoo xam ne wane ko lan moo tere télévision bi wane lu baax lan moo tere télévision bi wane jigéen ju baax juy sëy ci këram ñu wane ko en exemple lan moo waral tey télévision Sénégal war a wanewul tey documentaire ci Soxna Jaara Buso ci taxawaayam ci toogaayam ci njulliteem ci nangoo fonk jëkkëram ci ci ci ci jaamu yàlla ba mu jural ko lu li mu am lan moo waral tey télévision Sénégal yi defuñu ay documentaire ci loolu mais lu dul ay ay téléfilm yoo xam ne ay wor ay wuruc ay ay ay njaaloo ak yu bon rek moom lañ nekk ci télévision Sénégal loolu nag ñi ngi yàq société bi télévision Sénégal yi nekk Sénégal ñoom ñoom ñoom ñooy les premier auteurs yi nga xam ne ñooy yàq société Sénégal parce que dara lu baax duñ ko wane man bitim réew damay fay toog di seetaan télévision Europe dañ lay won nit ku nangoo liggéey nu muy mel dañ lay won jigéen ju baax ni muy mel dañ lay won les femmes entrepreneurs dañ lay won les femmes yi nga xam ne dañuy entreprendre dañ lay won lii dañ lay won laa bu dee télé film film yu bon nag film jigéen juy war ak wala film ku kuy njaaloo wala film nangam loolu ñu ngi koy wone ay minuit jëm kaw dat ba pare bindal la ci ne la kii il faut nga am plus de 13 ans wala il faut nga am plus de 18 ans pour mën ko seetaan ba nga xam ne yow parent bi di nga mën a dàq sa njaboot loolu yëpp c'est des moyens de prévention yoo xam ne dañ ko waroon a def ci Sénégal mais rythme bii Sénégal jëm ci ay télénovelas ci presse en ligne ci presse écrite ci yàq doomu aadama ci wax lu dul dëgg ci nit te dara du la ci fekk ci wax loo xamante ne bii lu bon la message yu bon la yu ñuy wan génn ci télévision bi xale yi di ko seetaan bu ñu continuer dans dix ans société bu pervers la ñuy yor fii ci Sénégal lii télévision Sénégal yi di wane bu ñu demee dans dix ans société bu perverse la ñuy am lan ngay gis bu vacances jotee seen petit gàlle concours woy concours danse bu vacances jotee loolu da ngeen di gis xaar leen ba vacances yi ñëw juin juillet août septembre lan ngeen di gis Oscar des vacance fecc seen petit gàlle concours woy concours danse concours lëmbal alors que waroon nañoo mën a utiliser vacance su xale yi won leen naka la ñuy tabaxe naka la ñuy defee plantation naka la ñuy jëmbate naka la ñuy creuser un puits naka la ñuy defee lii naka la ñuy régler euh, portable bu ki defal jeunes yi une formation en fait c'est ça la différence entre un jeune africain et un jeune occidental Thomas maa ngi lay bëggee Basirou Thiam ndongo Seen maa ngi leen di ziar différence bi am ci nasaraan bi ak ñun mooy nasaraan bi day utiliser vacances yi ngir éduquer ci ay doomam jox leen xam-xam jox leen xel mu rafet jox leen idée yu bees yóbbu leen ci àll ba ñu souffrir wala ñu bay wala ñu dem ci benn centre sociale def ay œuvre caritative caritative tabax benn kii wala ñu peinture benn hôpital boo xam ne peinture bay màggatoon na yooyu nga xam ne moom mooy ay activité professionnelle socio-éducative loolu duñ ko def ci Sénégal lan ngay gis fecc woy wuruj ak ak ak ak ak ak rek presse bi di ko wane ku dàq fecc yow la ñuy wane ku dàq woy yow la ñuy wane ba nga xam ne Sénégal dans 10 ans dans 20 ans réew mi dootul créer ay boromi xam-xam mais ay woykat ak ay fecckat la nar a créer ci Sénégal loolu lu ñaaw la loolu maa ngi koy déplorer di wax waa Sénégal sociologiquement les sociologues les chefs religieux personnes ressources yi yéen ñi nga xam ne yéenay patron de presse yi xoolaat leen seen ligne éditoriale yi ligne éditoriale yoo xam ne politique rek la bu ñu la fayee nga waxal nit ki li la neex yàq yàq nit ki ca des te li ngay wax dara du ci dëgg presse en ligne bi buñ la fayee nga jël nit xas ko wax la lu la neex ndax xaalis biñ lay fay ak për jëm bi jëndi sa télénovelas yoo xam ne pour détourner l'opinion sénégalaise da ngeen leen di tegal ay wor ay wuruj ay ay ngoro jabari jàmbur ay foye jabari jàmbur ay bàyyi ju ëmbal doom ay nangam ak nangam loolu loolu ay téléfilm yu bon a bon la yoo xam ne kenn waru koo wone ci télévision Sénégal yi ñuy won askan bi ñuy seetaan lu mel noonu te war a am leneen yeneen programme yu ñu leen won damay gis ne dañoo manqué programme de telle sorte que amuñu capacité imaginative amuñu capacité de créativité wala de création créer ay ay affaire créer ay programme yoo xam ne programme yuy yar la ci mbay programme la yuy yar la ci wàllu mërs ci wàllu éducation wàllu santé wàllu nangam mais chaque jour télénovelas yi lu bon dong nga ci gis col bon presse en ligne bi léegi col gu bon woy yi ngay gis soirée Wally Seck soirée kii ba xoolal gel bi tenue bi mu sol xoolal ndaw si kii de awraam yëpp a ngi ci biti léegi Sénégal ku ci dàqa solu col gu bon yow yaay star bi ku ci dàqa solu col gu bon rek ku ci gën a mën a génne say ween wala nga génne say taat yaay star bi ci Sénégal loolu lu bon la loolu lu bon kese la promouvoir lu bon nag réew mooma xeet woowa xeet wu bon dong lay mujjee ku fi promouvoir lu bon xeet gu bon dong ngay mujjee parce que vraiment lii dafa ëpp ba ngay gis léegi télévision Sénégal ñu ciy permettre loo xam ne wala soirée sénégalaise yi ñu ciy permettre loo xam ne da gis tenue yi nga xam ne caga ji en Europe man damay dem Europe xam naa prostituées yi lu ñuy sol ndax damay romb ci boutique yi damay romb fépp di koy gis da ngay gis prostituées ya nekk Europe caga ja ne Europe yanay sol bu ñuy def seen affaire film prostituée ñun suñ jigéeni Sénégal yi moom la ñuy sol di ko génne ci mbedd mi wala ñuy dem soirée yaakaar ne loolu mooy bi ay ngaaka lañu ay seer lañ yoo xam ne xamuñu dara da nga leen di xool danga leen di yërëm parce que man daf may naqari damay xool ne gis ne lii ab caga moo ko war a sol nekk ca bistron ba ca baar ba mooy caga yooyu di fecc di si meeku di sol col yu bon yooyu nekk ci baar yi mais ñooñu fañ koy defee sax suturu la na ci bitim réew mais fii Sénégal dangay gis ku ko sol yaakaar ne moom fi mu toll ni elle est au top alors que moo gën a ñàkk fayda ci Sénégal da koy xool yërëm ko xam ne kii ab dof la ab dof la dangay xool jigéeni Sénégal ñu ci bari da ngay xool ñu sol col gu bon goo xam ne ay caga bitim réew ñoo koy sol te fañ koy sole fu discret la ñoom nag ñu koy sol fii ci mbedd mi di génn ak moom ñu naan ay eh waay xoola kii tënim bi yow tënim bi de dafa tënim bi de dafa nii que yow tëni bi nga sol du tënib dara tënib caga la bitim réew moom nga jël sol fii ci digg bëccëg bi yaakaar na yaa ci nekk il faut ñu yaraat nit ñi xamal leen li xew nañ bàyyi li ñuy gis bitim réew lépp ñu koy indi ci Sénégal nañ bàyyi lépp loo gis bitim réew indi ko Sénégal tubaab yi respecté nañ seen bopp colu caga yi wala sol yu bon yi wala film yu bon yi dafa am barab yi ñu koy defee defuñ ko au public de ñii tukki xam nañ bu baax li may wax kenn doxul ci mbedd Europe yi gis fa yu bon yi ñuy wane Sénégal nii ci suñ télévision yi suñ télévision yi lu bon li ñuy wane nii gisuñu ko ci Europe ah. wala ku ko ci seetaan rek min wi jëm kaw nga ko seetaan min wi col yu bon yi nga xam ne moom la ñuy sol fii ci Sénégal ci soirée yeeg ci ngénte yi gisuleen leen ko bitim réew ah, ku ko ci gis dangaa dem fañ koy defee nga fekk ko fa kon nañ bàyyi affaire u ngaaka yi ku ko ci def nag yaakaar na yaa ci ne ngaaka blende bu bon nga xamoo dara loolu maa ko wax waaw bi ci des ma bëgg koo wax mooy régulateur sociaux régulateur sociaux mooy mën na nekk kilifa diine yi mën na nekk personne ressource yi nga xam ne nit ñi dañ leen yaakaare dara mën na nekk star koo xam ne daal mbooloo topp na la souvent bu ñuy wax régulateur sociaux nag sëriñ bi moo ci njëkk mooy kilifa gi woykat baa ngi ci mbër maa ngi ci euh, footballeur baa ngi ci ñëpp a ngi ci parce que ñooñu dafa am exemple yu ñu war a wone régulateurs sociaux yooyu ci Sénégal nag dañoo gis ne politique bi dañ leen a dañ leen a euh, dañ leen a transformé dañ leen a transformé ba nga xamante ne bi dafa mel ni régulateur sociaux yooyu waroon a nekk ay régulateur doonatuñ ay régulateurs sociaux ay déséquilibres sociaux la ñu na ngeen déglu bu baax li ma leen di wax régulateurs sociaux yi nekkoon ci Sénégal nga xam ne dañ leen di wax ay kilifa diine woykat bi mbër mi star bi nga xam ne mbooloo topp na la gëm na la ndeysaan bëgg na la yow nga waroon a jël mbooloo moomu nga teg ko ci aw yoon bu dal jotee nga équilibré dëkk bi socialement léegi yow source de déséquilibre nga loolu nag moom laa taxit moo taxit ma bëgg ñun jeunesse su ak ñun Sénégal yi ñu bàyyi leen xel mën a def la part des choses il faut ñu jàngal sénégalais yeewaa àll bi yee nit ñi ci biti ba ñu xam ne nit ki nga xam ne ab sëriñ la wala ab footballeur la man ma bëgg Alaaji juuf ndax footballam bi football bi laa ko bëggee woon mais bu ma wooyee ne ma ñëwal politique damay lànk man ma bëgg Balla Gaye ndax mbër la neex na ma daan kii daan na kee bàkkoom neex na ma su ma woowee ne ma ñëwal politikal kii damay lànk ainsi de suite ainsi de suite ndax bëgguma ab Alaaji Diouf wala Youssou Ndour wala saa neex ngir politiku waa ji man maa ngi gis ne waa ji politique bi muy def baaxut ci réew mi maa ngi gis ne waa ji politique bi muy def politique gu sàcc alali Sénégal la maa ngi gis ne waa ji politique bi muy def politique par parparloo la maa ngi gis ne waa ji politique bi muy def politique gu euh, dóor doomu jàmbur làq sa doom la maa ngi gis ne waa ji politique bi muy def avenir u Sénégal nekku ci ndax bi ressource naturelle u Sénégal yi mi ngi koy dilapider waaw maa ngi gis loolu ba pare ndax Youssou Ndour ànd naa ak moom damaa war a ànd ak pour lan wala Balla Gaye ànd naa ak moom man damaa war a ànd ak moom pour lan il faut ñu yee askanu Sénégal ci loolu kilifa diine yi nag man dafa am niveau bu ma leen teg ñoom ñoo tax sax réellement ñuy wax waxu régulateurs sociaux kilifa diine su fekkee dangaa dem ba am parti politique boo far doonatuloo kilifa diine tu es un politicien il faut mu leer part des choses boobu tamit il ñu def ko te ñeme koo def ñeme koo wax yow sëriñ bi su fekkee wàcc nga ci sëriñ gi dugg ci politique bi ne ma woteel diw bàyyil diw yow doonatoo sëriñ politicien nga léegi politicien googu nga doon ndax ñun ñi nga xam ne ànd ñoo diw moomee nu sommes obligés ñu topp la déedéet nous ne sommes pas obligés loolu moo tax ndigal jeex fi loolu moo tax woteel leen diw wala influence diw de laa àndal diw de gërëm naa ko diw de li mu def diw de def na fi nangam la fi kenn defut yooyu yëpp ay source d'influence la yoo xam ne kilifa diine yi nga xam ne ñoo mérité woon respect Sénégal ñoom ñoo fi desoon pour nit ñi respecter leen ñoo fi deseen ngir nit ñi mën leen a wekk ñi ngi yàq seen ndono loolu je le dis haut kilifa diini yi ñenn ci ñoom ñu ci bare baree bari fi mu toll nii ñi ngi yàq seen ndono ndax bu ñu demee tuuti ci kanam dans 10 ans Sénégal kenn dootu fi gëmati sëriñ wala ñu koy gëm tuuti lay doon parce que xaalis daf ko yàq politique daf ko yàq te loolu il faut ñu wax ko bu ñu demee dans 10 ans dinañu toog ne Sénégal gi ban façon Sénégal la parce que kenn dootul gëm benn sëriñ wala boog xalif général ba ngay gëm wala sëriñu fondateur ba ñu si def ñëpp nga ne ñoo am xaalis rek la ñuy wut point final parce que da ngay gis ay defin ak ay manière yoo xam ne yow xaaroo woo ko woon ci kii parce que man dama laa yaakaar yow tamit dama laa yaakaar te ànduma ak président bi nga ne ma far force damaa war a ànd ak président bi ndax président bi jox na la xaalis yow man nag awma ceeb man awma ceeb sëriñ man awma ceeb pour quoi yow waa ji jox na la xaalis rek nga ne ma àndal ak diw moom de am na taalibe akay <laughs> jàmbaar moom kay yoon wi moom kay lim liggéey ci yoon wi moom kay jàmbaar la kii kay nangam sanga waa mais yow ndax seet nga taalibe bi la yaakaar yow ñëw di la jox at di addiyaam nga di ko dajale yow sëriñ bi di ko lekk ndax seet nga ndax taalibe boobu mi ngi ci condition yu baax wala déet yow ndax seetlu nga sa taalibe bi nga xamante ne bii mi ngi la yaakaar di jël addiyaam man ma liggéey sama addiyee ñëw raamal la jël sama téeméer bii ma am jox la ko wala ma jël sama mille francs bi ma am nuyoo la ko nga am ci plus de 500 wala 1000 taalibe ñu lay sukkal di la raamal tey 1000 francs yooyu laataa ñu koy am dañoo ñaw suba ba ngoon wala dañoo menee baru xëy maçon suba ba ngoon ñu fay leen journée ñetti téeméer wala journée ñeenti téeméer ñëw 1000 francs yi ñëw nuyoo la ko ngir sa maam yow seetoo ndax taalibe boobu mu ngi ci condition yu baax seetoon ndax taalibe boobu mi ngi manger à sa faim seetoon ndax taalibe boobu fa mu dëkk am na hôpital seetoon ndax taalibe boobu fa mu dëkk am na école xamoo ndax seetoo ndax taalibe boobu fa mu dëkk am na tali seetoo ndax nguur gii nga xamante ne bi ñoo yilif taalibe boobu mi ngi koy teg ci condition yu baax lu dul nguur googu jox na la xaalis rek nga ne moo fi baax li jënteetoo taalibe bi yow loolu su continuer ci nii mu nii mu jógtee nii sëriñ day jeex ci Sénégal léegi dans dix quinze ans dafiy jeex dafiy jeex mooy du fi jeex ndax ña sampoon racines yi ñi ngi fi ña sampoon racine racines yi seen yoon yooyu seen tarixa yi ñi ko sampoon ñi ngi fi de lañ sampoon mi ngi fi lañ bindoon mi ngi fi ña koy topp ñi ngi koy topp mais da cee am pourcentage bu baree baree bari léegi ci famille yooyu toppatuñu loolu seen maam yi doon def xaalis la ñuy topp xaalis boobu ñuy topp nag buñ ci continuer nii dans 10 ans maa leen ko wax dans 15 ans kenn dootu gëm benn sëriñ loo fi waxati ñu ne la waxi boppam lay def xaalis lay ut loolu nag lu jara moytu la lu jara moytu la ndaxte Sénégal dafa am ay racines dafa am ay fondamentaux fondamentaux yooyu ñu ko fi defoon dañoo wane exemple Serigne Touba daawul laal xaalis Serigne Touba daawul laal xaalis dégg naa mas naa toog ci kees yi am pax nekk foofu mu mu woo maam Thierno ne ko tibbal ci xaalis bi sakk sakk ci sakk ci sakk ci pax mi paxum jinax sakk ko ci kuy sakk paxe nax ci ay xaalis xam nga ne xaalis ji tiitalu la ñooñu foofu lañ tolloon jamono jii nag ñii fi nekk ñenn ci ñi nga xamante ne bii ñoo tax may wax xam nañ seen bopp kër yu rafet oto yu rafet jees neer yu baax ak i jongoma ak i iphone ak i ipad moom la ñuy lijjanti mais toppatoo wuñu ndax taalibe bi nguur gi ko yilif mi ngi mi ngi aar askanam wala aarul askan wi duñu wax nguur gi dara duñu wax nguur gi dara li ñuy wax nguur gi daal mooy tubaarkàlla njàmbaar la de moom de tabaxal na sëñ bi nangam moom de <laughs> lu kenn mës a def def na ko may na daara fii tabaxal na sëriñ bi daara waa tabaxal nga sëriñ bi daara rey nga ñaari junniy taalibe yoo xam ne dañoo waroon na liggéey loolu sëriñ bi santaane wu ko de sëriñ bi santaanewul loolu sëriñ benn santaanewu fi loolu benn xalifa général benn chefu tarixa bu am ci Sénégal santaanewul yow yow chef d'état bi wala yow gouvernement bi ngay toroxal askan wi ba noppi di leen tabaxali jàkk ak i daara loolu kenn santaanewu ko jox nit ki mu lekk moo gën tabax junni daara gaa ñi nañ xam loolu ñoom gouvernement yi nañ xam ne jox askan bi ñu lekk teg leen ci condition yu baax moo tax moo gën tabax junniy jàkka ndax nit ki bala moo taxaw ci jàkka ji na am lu mu lekk na bëgg a faju faju na bëgg a jàng jàng na am ma bëgg a dem dem loolu rekk la waaw lii mooy li nga xam ne man moom laa bëggoon a wax ci régulateurs sociaux yi di wax ci indépendance su Sénégal tuuti ak serment bi serment bi nee nañ dinañ ko def le deux nañ def seen serment un problème serment bi xorom si dañ na parce que opposition serment boo xamante ne bi les parti de l' opposition duñ fa nekk loolu serment bu ñàkk xorom la serment wu euh, buy wone fracture bi am ci Sénégal la serment la boo xam ne bu ngeen ko xoolee da ngeen di gis la fracture da ngeen gis ne du ngeen gis ne Sénégal yépp moo représenté wu foofu du ngeen gis ne serment la boo xam ne sénégalais yépp ñoo ko approuvé da ngeen di gis ne serment la boo xam ne serment la boo xam ne ki ko def moo ki mbokkam la ak i xaritam ak jege jegeñaaleem boobu serment nag c' est pas le serment de Sénégal c' est le serment d' partie du Sénégal danañ def seen prestation de serment mais nañ xam ne c' est le serment d'une partie de la population sénégalaise mais l' parti partie 44 pour cent wu Sénégal yi bokkuñ ci prestation serment boobu cinquante 56 pour cent wu Sénégal yi ñoom ñi nga xam ne ñoom nga déclaré ñoom ngay àndal def serment mais 44 pour cent ci population Sénégal ànduñu ci boobu serment 4 avril bi nag da ngeen di dégg à chaque fois ñu koy défilé ñoom ñoo ko daan seen seen tànneef la mais man jàppuma ne indépendance Sénégal 4 avril la indépendance su Sénégal ñu mel ni ñoom Cheikhul Khadim ñu mel ni ñoom Lat Dior ñu mel ni ñoom Cheikh Omar Fouti ñu mel ni ñoom ñooñu nga xamante ne bi joxe nañ seen bakkan ñi joxe seen àddina ngir Sénégal moom boppam date yooyee foofu la Sénégal moomee boppam mais Sénégal moomut boppam 4 avril 1900 1960 c'est pas vrai loolu Senghor moo ko teg ak tubaab yi tëral seen constitution teg seen date bu leen neex mais Sénégal bi muy moom boppam yàgg na booba Senghor ju doogut Sénégal bi muy moom boppam booba Senghor ju doogut ndax ba ñoom si Joor di xeex booba Senghor dafa judd ba ñoom Lat Joor di xeex ak ñoom Alburi Njaay hmm, ñoom Cheikh Omar Foutiyou ñooñu ba ñu nekkee Sénégal fii di xeex ndax booba lajoor dafa judd booba booba booba Senghor dafa judd ba ñoo ñooñu jàllee ñoom sëriñ Touba ñëw 1895 bañ koy exilé fii bi gouverneur saint bi di taxaw ne may yàlla fii ci Sénégal Serigne Touba ne ko waxoo dëgg xam nga ne kon ñooñu ñoo ñoo xeex indépendance su Sénégal indépendance su Sénégal jamono jooju la jamono bi gouverneur Saint-Louis taxawee fii ci Sénégal jamono ji nga xamante ne bi gouverneur Saint-Louis ci la taxaw fii ci Sénégal ne may yàlla kenn nit doo nga taxawoon ne ko waxoo dëgg mooy 1895 nañu remonté ba ca date yooyu. bugguma sax wax ne nañ ko def 1895 parce que dañ naan am murid la moo tax mu koy wax ngir sëñ Touba déedéet mais nit bu defee jaloore nañ ko wax buñ ko nëbb nit ki bu ñu soxor bu ñu soxor man nekkul ne damaa nekk murid moo tax may wax loolu Lat Joor xeex na ba tëdd Cheikh Omar Fouti xeex na ba tëdd Alburi Njaay ñi fi nekkoon ñëpp xeex nañu bañkat yi fi nekkoon ne bañ nañu waaye nag il faut que ñuy wax jaloore yi nit ñi ma ne 1895 bi gouverneur bi taxawee ca Ndar ne maa yàlla kenn nit dong moo nekkoon waxoo dëkk loolu dëgg la dañ ko war a jàngal xale yi wan leen courage wan leen jom wan leen fulla wan leen fayda wan leen ngor il faut ñuy jàngal loolu sénégalais yi il faut ñu jàngal loolu senegal yi il faut programme scolaire yi programme éducatif yi nga xam ne moom la ñuy jàngale ci école yi du doon ay Voltaire ak i Molière ak i de Saint-Exupéry ak ay nangam ñun suñu yoon nekkut ci ñooñu lan moo waral ñu war ñoo jàngal par la force ay Antoine de Saint-Exupéry ay Molière ay Voltaire ay la révolution de 1789 ay Cristobal Colombo lan moo waral ñun ñu war ñoo jàngal loolu ba pare def ko ci programme yu ngand benn feuille bi ci ngay gis ci lañ lay defal la joor defal la ci Samori defal la ci Alburi defal la ci Cheikh Omar Fouti defal la ci Sëñ Touba def ci Alaaji Malik def ci Samba def ci ñëpp ci benn page bi ngay gis ay cours yi lëmm ñu la jàngal le Japon di la jàngal le nàngam programme éducation Sénégal dañ koo war a tasaare tas ko tasaat ko tëggaat ko valeurs yi jikko yi suñu kilifa yooyu ñu koy jàngale en extension en extension yaatal ci xóotal ci kañ leen wane seen njàmbarte wane seen ngor wane seen courage loolu ñu koy inculquer xale yi dans dix ans dans vingt ans on peut construire une société soucieuse du devenir de son pays mais fileeg ñi ngi jàngal nit ñi programme mu nasaraan ci sénégalais bi xam-xam bi muy am mooy toujours rêve am mooy nasaraan bi mais bu ñu leen jàngaloon ne Sëñ Tuubaa doon bañ jàngal leen Alaaji Malick jàngal leen Maam Bu jàngal leen Limaamu Laay jàngal leen ñoom Lat Joor résistance armée comme résistance pacifique ñu jàngal leen programme bi yépp li ci des ci ay tubaab ak yooyu ñu mosal leen ñaari page doy na sëkk tubaab yi demal leen bitim réew man nekk naa Espagne presque vingt ans damaa gis ñu fay jàngale kenn sëñ tubaab wala Alaaji Malick ak yàlla Lat Joor faale wuñ leen sax lijjanti wuñ leen seen culture dëkk lañ leen di jàngal lan moo waral ñun Sénégal duñ jàngal nit ñi suñu culture ñu topp culture tubaab bi di ko pour lan loolu moo lay wan ne on est avec des régimes complexés décomplexe boobu nag il faut ñu créer ko te ñun ñi ñoo ko mën a créer décomplexe bi Sénégal war a décomplexé ñun population bi ñoo ko war a créer yàlla nee na du ma soppi am réew mukk fileeg population ba ñoom ci seen bopp bëgg ñoo soppeeku déglu leen message suñu borom bi suñu borom du wax di waxaat loolu yàlla wax mooy dëgg duma soppi population mukk fileeg population ba ñoom ci seen bopp bëgguñoo soppeeku kon il faut ñun ñu bëgg soppeeku soppee d' abord il faut ñu dagg buumi njaam yi d' abord il faut ñu din décomplexé d' abord ngir mën a tabaxaat suñu Sénégal waaw lii mooy li nga xam ne mbokk yi moom laa fi indi woon tey pour bëggoon ko échanger ak yéen di leen tuubal di leen jégalu di leen jox rendez bu incha allah ba fan yi waaw di leen ziyaara bu baax di leen ñaanal yàlla ci màggal gi ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm di jaale suñu mbokk yooyu nga xam ne ñoo fi décédé si yoonu poroxaan bi di mbokku euh, coalition Idy 2019 bi di ñaanal aussi ñi nga xam ne ñoo war a dem Kazu Rajab aussi ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm di ñaanal Sénégal jàmm di ñaanal képp ku fi nekk nga am indépendance am tawféex am xéwal am xaalis moom sa bopp ba saa su ne kenn du la jënd kenn du la wax looloo bëgg la wax maa ngi leen koy ñaanal yéen ñëpp indépendance intellectuelle ak indépendance économique loolu moo war a defar suñu société indépendance économique mooy tax Macky Sall du la wax looloo bëgg la wax indépendance économique mooy tax nga am fitu loo ko bëgg a wax wax ko te doo ko ragal indépendance intellectuelle mooy nga am xam-xam boo xam ne li ngay wax da koy maîtriser xam ko te li ngay wax kenn du ko dindi loolu nag moom laay ñaax sama mbokk yépp samay frères et sœurs di leen ñaanal yàlla yokkute ak tawféex ak tey siir di leen jox rendez-vous fan yi jërëgeen jëf